di ñaanal fépp foo xamante ni doomu réew mi ma nga fa rek di daan doole yàlla na la fa yàlla defal jàmm defal la tawféex di ñaan sunu borom mi nga xamante ni dara tëwu ko yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi defal ko mbooloom jullit mbokk yi tey Bantamba TV ñoo ngi fii ci arène nationale tey dimanche le 19 décembre ñu ànd ci Leewtoo production Leewtoo production indi ñu ñaari xale yoo xamante ni ub nañu làmb diggante Tapha ak Boy Niang nekk combat boo xamante ni combat bi mu taxawee ak léegi yàgg na amateur di ko xaar waaye mbokk yi tey tey la tey Leewtoo production lañ ci àndal mbokk yi Bantamba TV dafa fas yéene ànd ak yéen fas yéene bëggalante ak yéen tey ci bisbi ci lépp lu mën a xew ci biir stade bi muy ci wàllu way ci tëgg ci bàkk ci tuus ci bëre lépp dañ leen ko fas yéene dégtal tey jox leen ko ngeen cons ko muy neex mbokk yi Bantamba TV la mbokk yi Bantamba TV bu yàggul dara demal nañ leen fële nga xamante ni moom mooy écurie Lansar fekk fa xale yi fa ñuy contacter ah def ñoom lu am solo noonu ñu ko defee ci fi nga xamante ni moom mooy Lansar dinañ ko def ci yeneen écurie ak yeneen ak yeneen yeneen écurie dina gën a yaatu Bantamba TV mbokk yi li ko tax a jóg mooy fas yéene bëggalante ak yéen ci wàllu làmb ndax làmb mooy suñu cosaan làmb mooy sunu culture maam Cheikh ñoo ngi fii ci arène national Pa Modou Mbaye le grand monteur fàttewuñu sa bis bi de sa bi rek kanu ñor le 26 décembre kan lañ ci àndal gaynde ak seew leef gi jibi sa jibi nekk combat boo xamante ni combat bu nu ñor la ndax kan lañ ko tudde Pa Modou Mbaye le grand monteur bés boobu mbokk yi amateurs yi supporters yéen ñëpp ñu ngi leen ciy woo ngeen ñëw ñu soutenir sunu rakk sunu xarit sunu doom sunu lépp koo xamante ni dafa nangoo liggéey dafa bari jom te lii daf cee nangoo sonn lool kon bésam kenn waru ko tànkam Pa Modou Mbaye doo doo ko defati de Jibi Ndiaye moo la tuddee la bi mooy troisième édition su ma juumul Pa mbay Mbaye drapeau du mbay Mbaye non Bantamba TV la ci ci biir lay xewee une télé une vision maam Cheikh xoolal xoolal xoolal tribune bi xoolal jëlal jëlal jëlal Pa Modou Mbaye ñoo ngi fii ci biir arène nationale ndeysaan tey dama fas yéene bégalante ak yéen ndeysaan Boy ñaar dëgg si na Tapha Tine dugg si na Tigre bu Lansar la ñuy dajal noonu ndeysaan Fils de Max moom it tey dafa am combat Fils de Max a ngi noonu Fils de Max nuyu nañ la. sant yàlla. ana adversaire bi tey mujj ah. bi nga am. xamuma ko sax maa ngi a gis sax. xamoo ko yaa ngi koy soog a gis jël ko. bilaay bilaay xam ci li nga dugg. waaw ñun amuñu problème amuñu ah, bu ndaw du changé woon sama combat ma tafaatin ngay bëre léegi mu bëre. sa bopp. parce nga def stade bi doy na waar. doy jàmm doy jàmm. nga def stade bi. doy jàmm doy jàmm. tey xale yi ñuy si biir. doy jàmm doy jàmm. tey doo indi. doy jàmm doy jàmm. doy jàmm jàmm rek. tey lan nga indi. lan la ñu yàlla may ndam doy jàmm. lan ngay wax tamit seen. jàmm rek jàmm rek incha allah. lan la ñu yàlla may ndam incha allah. combat bi tey naam xel. léegi dañuy négocier pour génne ñële dugal waaye waaye gars yi ñoom dañoo xam ni. boobu mooy sa ñaata combat. boobu mooy sama septième combat. septième victoire. si kàttanu yàlla. tey naka ngeen ñëwee. waaw tey ñu ñëwee mooy comme ni ñu doon ñëwee mais daa am leneen lu si yokk. kon moo ci yokk. waaj nañ ànd ak ñu war a àndal ñëpp. ànd ak suñuy mbokk ñoom entraînement yi doole lépp. di ñaan suñu borom bi dara tawul. mu may si kàttanu yàlla ñu daal tabaatin jël bu rëy bu set wicc yóbbu na ko waa Pikine. ndax waa Pikine dañoo yónni yàkkamte ñu ñu ñëpp ziar mu yàqu. MMA la ñaari nit ay dugg léegi MMA. Ah, léegi tubaab la ñu indil MMA par ñaari nit. li jaadu tax looloo jaadu moom lan war a wax fi mu warta wax dara lu làmb yàqu. mais ñaari nit mooy dugg mooy mi mooy ak mbër mi war koo ëmb dugal ko loolu lan xamoon ci làmb cosaani làmb ba léegi loolu amoon. léegi mbër bi doo dugg ak ñaari paa ñi ci def ñu bàyyi leen ci biti ñi koy encadré làmb yàqu na mooy kenn xamul tubaab kan moo def loolu. moo ma jaaxal. a la waxal a ñoom CNG a ñoom laay waxal. xam nga gars nekk bëgg a xeex làmb bëgg a rayal làmb ñu leen di ñu leen si bu toll nii ci mbër mu mag est que lii arrangé na ko. mukk arrangé wu ñu. dañuy wul kenn lii day ray làmb. gars yi ngi wax people view xaw ma nu ñu koy waxee. people view waaw. loolu looloo ngi ray làmb waxatuñu loolu ñu ñu ñu bëgg a ñu bëgg a see teg lii. day gën a dee. lu leen téye waaw si si biti da xamuñu ñu fi teye waa CNG ñoo ñu téye si biti te lii arrangé wul mbër bi mbër bi dugg ak ñaari ndir si biir toog ñu nekk si cummikaay yi kii toog si cummikaay bi sax ñu ngi ko teg si biti loolu jaaduwul nañu xoolaat toog si cummikaay bi ñu teg ci kii toog si cummikaay bi sax mu ngi si biti lii nañ ko xoolaat lii jaaduwul daal lii moom du yoon jaaduwul waaw ñun ñoo yor sécurité mbër bi tey ñu bàyyi ñu fii si bunt bi loolu du yoon ñoo war a bàyyi ñëpp dem dugg waaw ñu ñoo ànd ak moom waaye nag ndam rek alhamdulilah lu xew ba ngeen toog fi. waaw ñëw rek di di xaar rek. gars yi xaar ménageur bi ñu ñëw waaw. instant yi de gars yi ñu ngi téye fii xam naa dañoo am problème si biir ma mbër mi la ñu bàyyi ak ñaar ñun ñëpp ñu téye ñu boole ko ñu ci. man man man man ngay laaj. mais léegi nag moom la. non kii ñuy fekkewu ko. le président du CNG. mais ñooy fekke. waaw lan la. ils ont droit à dix personnes. ñu dugal huit ci biir mu des deux deux yooyu lañ leen wax ñu dugal waaw loolu rek la léegi bu dugalee de plus non amatul plus léegi sur plus dañ koy éliminer loolu rek la du leneen. journaliste yi fi saaseel naa leen defal naa leen fu civilisé fu baax fi ko bëggee laa leen koy defale mu mën mi waree ñu génn tous. lépp jàmm. ah non man njaago la. Ah. njaago bu baax bi. njaago bu baax njaago sëñ Touba. Ah. ak njaago siñ Fallou Rahman. Ah. ak njaago siñ Abdourahman ah. Mbacke. waaw njaago bu baax bi bëgg sëñ Touba rek a wóor. laay def tey. lu doy waar. lu bees tàkk. xolal tey damay ñëw pet petal xam bu matee du bàyyi dagg rek bii mooy huitième benn defet tey nee naa lu bees takk laa indi incha allah bu soobee yàlla di nga ci teg bët incha allah. maa ngi nii maa lay béyee bu baax. reprendre nga bu yàgg. maa ngi war a bëri dimanche benn mbapat tëngeej dëkk ñoom gàmmu gee maa ci woo ñëpp dara mais maa lay béyee lépp lu am yow la barke Serigne Touba. naka mu naan waa tey moom sant yàlla rek. waaw lu mu indi rek. incha allah ñu def ko waaw. waaw ndam rek incha allah bu neexee yàlla jaajëf waay. xarit la yàllaa ñu boole sama xarit la yow bàyyi liggéey. non bàyyi non kii sama xarit la yàllaa ñu boole. kii moolul yow xam nga yaa moolul yow. yow mi yaa moolul yow. am bi yëpp xam nañ ne yow moolul. dimbali ma yaa moolul yow doo tere yow doo. da ngay jële yow mi vraiment da ngay jële yàqatu der mi nga doon. mais am na lu ma jaaxal ci moom mooy saa bu commencé mos dara doo ko gis doo ko dégg man loolu jaaxal na ma ci lii. man li kenn moo gën rek la gëm. <laughs> bi nga bëgg ànd kenn. Balla maa lay ziar tey koy sama rak sama indi Alioune Sèye Junior. ñaanal yàlla may ko ndam sedd guy yàlla may ko ndam ndax ñun géejewaay la ñu am géejewaay la ñuy tiitaroo couleur géejewaay la ñuy waaw sama rakk laa indi yàlla na ko yàlla may ndam sedd guy ba le premier janvier nag bëri le premier janvier nag maa moomee maa aaye daan sàcc gi daan sàcc gi daan tubaari kàlla macha allah sa gàttu gémmañ bul ñu catu dimbali ñu de dañoo war a service yu mag bul ñu catu bul ñu catu dañoo war a mag Balla Gaye le premier janvier doomu Double Less buri bàccili Baye Mohamed Baye Sëñ Saliou rakku Lirou Diane borom le premier janvier yàlla may na man géejawaay laa far géejawaay laa dëkk. Ah, ki nga taxawal moom non kii saytaane la yéen ñaar xam nga Pikine la dëkk léegi daf maa bëgg a jax seeg waa Pikine moo tax muy wax loolu di ne xam nga moo tax muy wax loolu di ma bëgg a jax seeg waa Pikine te moom saytaane la man géejawaay laa dëkk géejawaay mooy sama chef ñoom ñëpp yàlla neen yàlla dafa jàmm ku gañe baax na ku daan baax na. jox la ñàkk jariñu waaw <laughs> déggal baal la waa ñaq de champion la wax dëgg yàlla maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax a baax mais pour l'instant du ma ak moom wax dëgg yàlla. waaw man moom yaa ma gën a xam damaa ne ay loxo man fu mu man lu ñu naan ku abal ku ñu abali bët moom fu la neex ngay xool maa ay loxo te fi ñu ma xool rek fa laay xool ci kan. bëggatoo di lim. non non fuggatuma di lim mbër wax dëgg yàlla def nañ liñ li ma fi def def am na si ñoo xam ne defuñu ko am na si ñoo xam ne liñ fi def laa fi def te kon aw ama droit laaj kenn buñu ku ñu ku ma boole rek te mu raisonnable ci kàttanu yàlla ma bëri moom. mais mais clarification la yaa ñàkk bidaa dañu bëgg leer waaw mais li waroon leer xam nga jamono bi may bëreeg moom sax waruma woon a bëreeg moom mais ba gis nga yàlla lu mu ciy dogal kon xam nga noonu la waroon demee mu demee noonu maa ngi sama beneen yoon xam nga di tàllal rek. sa bët a ngi ci kaw. waaw sama bët a ngi ci kaw ci kàttanu yàlla rang muy gaaw. waaw xam rek mooy loolu quoi. ana ma jëm. ñëwul maa ngoon ne bu ñëw maa ko pini. ndax nga pini. non dama ko ne bu ñëw. Ah. atul pression bi. mais mais tey loo indi tey. ndam rek laa indi. Oh. ci kàttanu yàlla. mais tey gis nga ñi nga àndal tey waaw ñii xam nga. ay champion rek ñoo la xew de. si kaw ma ko fay xam. Oh. waaw. mais ki ngay ko mais man ndaanal la. ndaanaan man ndaanaan laa waaw. Baye Balla man ndaanaan laa dama dama bokk ci espoir yi treize victoire la am treize victoire waaw treize victoire la am ak tey muy quatorze incha allah. ñaan yàlla ñu may ndam rek. loolu la xale bi ngay dajeel tey. waaw dégg naa ko xam naa li mu wax. waaw dynamique de ok yow nga am problème. Ah. waaw. non wax ñu xamante nañu de waaj rek. waaw ah. loolu lañ a wax. ma dem ah di dem guerre di war sama arme en tout cas ñu ngi waaj. tey combat bi dina am xeex. waaw lépp pare nañ ko. wala ci bëre lay ñeent. lépp pare nañ ko ñu ñëw baax na. sama gars yaa ngi. eh Tidiane Faye gis-gis bu bees. amul ñu ngi sant bu baax. daan nga booy bu doy waar dooy booy bu mën a bëre daan nga xale boo xamante ni champion la ci yoonam la nekk. waaw ah, Baye Baal dañuy sant yàlla rek di ñuyu waa Dalifort bu baax comme ni ma la ko waxee ñun ay xale lañ ay xale lañ dañoo teel a bëre rek mais ay xale ndaw lañ moom tamit champion la yaa ma gën a xam champion la mais yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko jàmm. fan nga jëm ki mooy kan. Eh, man la caat bu waalo lan nëb la la seet sama combat nga ma daan ñaga soo mënoo ma jël koo daan mënuma koo jël lu tax mënoo maa jël non moo bee victoire Alioune Seye Junior laa soxla bu daanee non am lu am coow am coow ñaata man maam man maam dix victoire benn défaite dañu ma ni Alioune Seye Junior laa soxla la jël avance balay may chance ngay wax nii wala booy eh, ji bàyyi ba la seetee da nga ne mënoo perte dëgg la bu le neuf combat la lekkal avance le neuf combat la. tey CNG na loo xamante ne ñun presse bi dañoo jox suñu gëdd benn ñun luy luy luy fourni si kenn du ko fourni si te li ñu bëgg def nii premier premier volet Pape Fall la ko ñu ko def ñu négocier loolu mais li ñu bëgg def nii lii mu toll nekk case bii dèjà da ngay bëgg liggéey caméraman bu bëgg liggéey nit di la traverser chaque instant na nga amee image bu baax mu toll ne tey loolu ba dañoo tas bëgguñu sax di gêner mais c'est facile. mais da ngeen doon boycott. non parce que ñun da yoon. boycott boobu dañ koy def parce que lii du yoon yaa ngi may dégg ñun promoteur ñu war a jox suñu gëdd parce que nan la guddeegal bëccëgal leen. ji li lan mooy seen problème. bàyyi ba la am lu ñu métti barki démb bi ñuy wootee réunion man maa fi teewaloon presse bi man la buur géwal yónni bi ñu ñëwee ci pavillon bu vert bi la ñuy def cadre nañu fi ngeen war a taxaw wan ñu disposition yi ñuy jël nañu ku dul Boy Niang numéro 2 mënu traverser seen kanam image yooyu ñu ngi ko ba tey. tey mënuñoo ñëw ba fii ñu wan ñu case boo xamante ne case bu ndaw la ñu géew bi mënuñu am appareil suñu appareil mënul zoomé wala mënuñu am yenn matuwaay yu mën a liggéeyee ñu indi ñu boo fii di ñu sacrifié wala ñu ñuy néewal doole ñun ay xale lañ waaye ay xale yu am jom lañ ay xale yu am fu ñuy taxaw lañ ay xale yoo xamante ne dañoo xam lu ñuy bëgg bu dul woon ak làmb ak mbokki Sénégal yi ñuy seetaan du ñu tàllal benn góor loxo naan ko may ñu parce que ay doomi góor lañ mais boo ñëwee ci làmb di liggéey da ngay gis ni ñu lay tuutalee ni ñu lay doyedalee ni ñu lay toroxalee te dafa ñaaw ci am na loo xamante ni rafetul rafetul ñaaw na trop. Tapha Tine a ngi noonu di dugg si Tapha Tine a ngi noonu mi ngi noonu yor benn béjjën dugg na Tapha Tine ngi noonu dugg si mbokk yi il est 18 heures mooy mooy moo ko tax a jóg. chercher de l'information pour jox ko askan wi. waruñu ñoo jël jël nag ñu fenn su boobaa li ñu bëgg a am pour jox ko gars yi ñu cons ko. duñ ko mën a am mais Mbambala nga ko dëgg la mais avant l'information il y a la sécurité d'abord. foo ne lu ñu fi nekk ñëpp li ëpp solo tey mooy sécurité bi bu sécurité bi jiitoo ba pare naa lu des ñu soog ko def ñi ki rek mën sa liggéey tant que sécurité amul enceinte bi ñu ñu ñu libéré ko yéen mënu leen liggéey convenablement donc moo tax si lañ nekk mais ñu tuuti ñu raxas ñëpp. ñu bàyyi la ngeen libre ngeen liggéey seen liggéey. mais nañ ñu bàyyi bu demee tuus. ngeen say ngeen pare ak moom xool bu pare ngeen dellu toog. mais nañ ñu bàyyi booy ñaar tuus ñu jël ko. loolu dañ ko soxla booy ñaar du tuus léegi après ñu dellu si. du tuusagum léegi dama ne ma ko mu xaar ba ñuy libéré fii mu soog a tuus parce que ñiy seeraan nekk Sénégal ak si fii ak nekk bitim réew ñu ngi seetaan te dañoo bëgg gis nit ñi ñuy tuus bëgg a gis image bu rafet donc mais ñu liggéey liggéey boobu après ngeen ngeen en tout cas presse bi nee na ñu tey moom d'accorduñ mais amul problème ñu on est ensemble incha allah lépp ñeen d'accord si kanam tuuti jeexal na combat bi Fils de Max moom moo ñu Boy Xombal moo ñu wan kanam ma ngay waaw waaw Boy Xombal ñu ngi léewtoo waaw waaw dañuy xeex laa ilaaha illallaah kor kor kor ba kor la kor kor kor da baax kor waaw waaw laa ilaaha illallaah wuyul Max Mbergane Max Mbergane daw na ndeysaan deret dafa foor maam Cheikh maam Cheikh waa xam nga day sama doom yaru lool koñ bi am ci moom yaakaar moo tax du ma am sago buy bëre. bi arbitre bi sifflé combat def. waa xam naa ne caaxaan daal sama combat dafa yàqu barke alxuraan sama gars yëpp bàyyi mu ne ma doo bàyyi bëre combat bi nga daan ma ko per boo rëccee boo rëcc boo indiwoon Tapha Tine sax barke Seydina Ousmane mu bëreeg moom daan ko man pare naa. waaye li ko waral mooy tey soo amoon defet dana am ñu dem na ko wala combat bi mu yàqoo da ngaa toog ndax daa am ñoo xam ne dañuy yàq rek mais dernière minute adversaire moom servo la waroon a bëreeg cerveau moo dawal motoom motoom indi médical motoom la dawal fi la ma fekk kon CNG médical yi dañ koy bàyyiwaat xel. lu tax loolu dafa gis état de forme bu. xaw ma lu mu gis mais daal xam naa ne mbër bu feebaree xëy na da ngay am ñoo àndal mais dawal sa moto euh, indi sa médical médecin wu CNG bi nañuy xoolaat médical yi parce que docteur du weddi moroomam mais loolu tey na xel dawal sa moto joxe médical demaat sa yoon loolu xel nanguwu ko. Eh, mais mbër juddu na de li ñu gis. waaye ñi ngi am ci moom yaakaar daal. foofu ama kenn ku may taam fu ma sama papa ne ma demal rek ma dem foofu. billaahi billaahi. mais dañoo gis moom moo débuté xeex bi yow nga finitionné ko. waaw daa xamul rek ñun ay xale la ñun lépp la ñuy sant barke Sëñ Bamba. ñun ñun lépp lañ ñuy lépp lañ ñuy jàng. séntu woon nga ci dóor mu daanu. waaye lamb la rek. bilaay waaye ñun ñoo war a jóg suñ bopp rek mais nag daa am ay siisumaan yi nekk ci biir na daa mel ni ñoom bu jëlul image dañuy faatu yàlla man comprendre ma dañoo war a yemale am ak ñàkk ànd ak ngor ndax yow mënoo boo tëggee sa mu jël ay bannière jox yoo xam nga bannière lu muy jar tey boo doon fay bannière lu mu bomoon di nga fay quatre cent trois cent cinquante bu jour ba jote ñu tëj ñu ci kaaf fii ngeen di yem c'est honte doy na waar. neexul ba neexul mais am na promoteur yoo xam ne war suñoo tëgg lamb. billaay man moom xam naa ne damay mujjee yem ci combat Assane Ndiaye ak Fallou Ndiaye mooy ëpp jaamu di. en tout cas tey liggéey bu métti la ñu liggéey. du tey rek ba ci jouru combat Siteu Papa Sow nii la parce que man comprendre ma yow ñoom buñ bëggee wax ne presse bi buñ bëggee taxawal seen combat ne bi bu jouru ñu indi la Guy Tangaas. boo xoolee combat yi jër yi ci dara. law si jël donc da nga am accès pour jël ko. maa ngi lay nuyu stress dépassé nañ ko. ci lamb kay sa mag nag combat bu mag la suñu mag ngay wax. Tidiane Faye. mbëru reporter yi ngay wax mais Tidiane sama chéri la xanaa moo Tidiane man maay deuxième femme man mais sport rek mais na xam nga moom deret moom dafa nekk loo xam te ne kenn mënu koo boole kenn noonu la rek mais lamb ji daal kon ni ko waxee sànq ñu dund lu metti duñ ne dund nañ tey. ndax boo gisee Siteu Papa Sow saw cee dund lu métti tey tamit ñun ñuy def nañ gars yi nañ xam ne ñoom dañ ñoo jox ay bannière yoo xamante ne ñoom tey bu ñu doon fay xaalis bu bari la fay ñu defal leen ko gratuit mais li ñuy wax ak ñun nañ koy jëfee ak ñoom ndax mu mënuñoo ñu jox seen i bannière ñu dugal ko un mois bi seen jour combat ñu bëgg ñoo këli këli loolu du yoon nañ jox presse bi fulla gën koo jox gëdd ndax ñoom ñoo def saa ñun kon doon nañ siy jàpp te xam ne ñun ak ñoom ñoo far lii benn jour la rek ay 30 minutes la bu jeexee jeex na kon na rafet. Baye Balla ñun dañoo war a booloo parce que gis nañ Papa Sow Siteu ñu ñëw ñu tëj ñu fii bañ ca jógee dañoo waroon toog waxtaan mais defuñu ko ñu ñëwaat encore ñu tëjaat ñu fii ñii bu ñu soxlaa dañuy woo jël ay publicité duñ ko jox te fayu ñu dara suñ ñëwee dañoo woote ci condition yu baax ñu liggéey ñun dañoo war a xamaat suñ bopp parce que ni ñuy wëree information di leen ko jox yombul dañuy bàyyi suñ njaboot di dégg lu ne. kon nañ ñu respecté joxaat ñu cër te xam na ñun dañoo am solo ci làmb ji bés bu ñu ci génnee làmb fay de nañu fonkaat bu baax a baax. presse bi tey difficilement la liggéey du tey yàgg fan yëpp loolu la. promoteur dañ di wax lii ba ñëw ci journée bi ñu changé avis mais nag ñun la rek bu fekkoon ñun danoo mooloo àndandoo promoteur tëgg combat ñun ñu bañ caa dem ñun ñëpp am na journée nekk suñ kanam bu nu ci woowul bu nu ca dem. Baye Balla ñaata mbër nga taal yow. ñaata promoteur nga wone te dara fekku la ci da nga ko def ngir sa liggéey da nga def ngir bëgg làmb am taar Sénégal laa gisee ñu naan facteur de développement di ray seen jeunesse Sénégal amul liggéey amul benn société bu état def wala bu mu defal xale yi bay balla Bantamba TV mii bégaay mi ko moom teg na la fa jox la looy sa njaboot buñ ko néewalee doole te ay doomi Sénégal ne dañoo bëgg mu jóg Baye Balla fu ñu jëm gaal yi duñ ko bàyyi ndax li Baye Balla defal ñaata mbër nga taal Baye Balla ñaata promoteur nga mu defal visibilité kan moo la ci mës a jox dépense baay Balla nañ ñu jox cër waaye ñun nañ xam ne du ñu ay sondeel di leeral di lakk suñu bopp nañ ko bàyyi. waaw tay liggéey. waaw mënuma liggéey c'est parce que lii ma gis neexuma ca man dama naan solideer gi may bëgg ñu fekk ma ci duñ ma ci fekk ndax damaa tuuti moo tax. mais lu ma wax bu ëllëgee boo ko xoolee di nga ko gis si kaamil mbala mu fekk ko ci big ma bind ko waxoon naa leen ko bañ ñu ko njëkkee def ne leen buñ ko nangoo dinañ ñu ko tegaat nit nag da ngay bañ ba dee mbaa nga nangu ba dee luñ ñu teg nag dagan na ndax ñoo ko nangu ndax maa ngi koo wuñ loolu kese laa amoon lu may wax. Baye Balla doy na waar man nag samay wax jàllu muus la siqi rek daj tey li ñu am problème pour dugg ci stade bi ak samay moroomi moroomi moroom. man maa mujj gis Pape Thialis pour lijjanti ko ba mën a dugaat ba sama mbokk yi dugaat Baye Balla ñun nuñ bëggante suñu biir mais bëgganteewuñu bañ da lay ree mais fekk bëggu la dañu bëggante suñu biir bu ñu manko woowe booleendoo lu ñu xàcc mën nañ koo am journaliste noobul la ñu seetlu ne bii mooy deuxième fois ñu leen di dugal ci kaas bu mel nii ne leen fii ngeen di yem waaw loolu lenn la rek maanaam dafa am loo xam ne su dee am maanaam lu mu mën a doon da nga wax balaa bés baa yegg si mais boo bàyyi ba mu ne këtt nag day jafe li jënt ça veut dire que ñun la presse bii ñëw si làmb ñun ñu war a xool suñ doxalin nan la ñuy doxal ak promoteurs yi ci seen ay événement parce que encore une fois ñoom ñoom moom seen ay événement d'accord waaye ñun tamit ay partenaire lañu ci ñoom ñoom ñu nekk ay partenaire ci maanaam gagnant gagnant dañuy jàppalante pour siwal seen ay événement bu laam jotee ñëw couvrir kon loolu war nañu man su bés yu mag yi amatee ñu xool nuñ ci waxtaane ak ñoom loo xam ne waxtaan lay doon pour ñu xam ne kat bés ba lii mooy am nga xam ne bàyyi bàllam bu buñee dara du ko bett mais am na loo xam ne boo ko defee nit ki des fois la muy def mooy gis boppam frustré loolu nag ñu ngi ciy interpellé encore une fois promoteur yëpp bàyyiwuñu benn promoteur parce que ñun nekkuñu fi pour kenn ñëpp lañ fi nekkal dañ làmb la ñuy def kon li am solo mooy président Bour Gueweul mi ñu jiite les reporters yi ne ci làmb na fexe moom bu lii passé nu ñuy toogee ak les promoteurs yi nga xam dañu am ay événement wala bépp promoteur buy tëgg làmb ñu waxtaan pour que yii xam nga tamit mu dañ parce que xam nga tey mënoo ñëw di couvrir làmb ci yenn difficulté yi aussitôt tamit ñun presse bi tamit ñu organiser wu parce que am na loo xam ne tamit anarchie la maanaam des fois da nga gis loo xam ne daf lay leer na yow Baye Balla lii tegu ci woon te tamit yàlla dëgg rek la bëgg am na loo xam ne nii mënta nekk c'est impossible yaa ngi dégg il faut que ñun ñu teg suñu ay mbir ci yoon parce que nit ki balaa ñu laa respecté yow yaay jëkk a wek sa bopp kon ñun nañ fexe wek suñu bopp affaire bi du xuloo du xeex du waxantelu ñaaw mais waxtaan ci xel la def li war a def li li ne li war a am ñu def ko li jaar yoon ñu def ko ñii liggéey ci làmb xam nañ leen am na ñoo xam ne événement kese mën na indi ci làmb mais est-ce que nit war naa ñëw chercher de l'information pour jox ko askan wi ñu ne la fii ngay yem loolu bu boobaa li nga bëgg a am pour jox ko askan wi di ko am. waaw xam nga information bi d'accord loolu nga wax mën na mais information bi information privée la parce que promoteur moom moo génn ay millions fay ay mbër tëgg événement am bu neexee tey mu ne Bantamba TV ak les arènes TV wala keneen ña liggéeyal yem ca xam nga am na si plein droit bu ko doogee mu ne parce que ñooñu la choisir pour liggéey ak ñoom parce que c'est privé moom la yaa ngi dégg loolu nag su fekkente ne day am kon ça veut bu fekkente nag information la bu nga xam ne tey bu général la wala bu kii la ku nekk am nga droit dem couvrir ko mais li événement la bi nga xam ne tey Baye Balla Mbuub moo kere structure am organiser événement am dëgg événement am yaa ngi dégg am na droit ne kat ñii laay liggéeyal du ma liggéey ak ñii. yàlla dogal na ni tàqalikoo nañ. waaw pour pour nga xamee ko dafa mel ni lu bees tàq la waaw lu bees tàq la àddina nii la demee parce que man ñun ci làmb lañ ne di si liggéey man Babacar encore une fois ragaluma defi defi buñ ma lancé incha allahu rabi bëgg naa ko relever maa ngi ñaan yàlla ak yéen sama frères yi ngeen ñaanal ma yàlla jàppale ma ci defi bi ma relever ko parce que lu bees tàq la les arènes TV te bu ci kanamee bu soobee suñu borom di ngeen ci gis nag leneen ndax yàgg maar laa fa àndal sama caméraman boobu nga daan dégg yàgg baax yàgg maar yàgg maar borom liberté 4 yàgg maar xam nga yàgg maar yàgg maar daal bi yàgg naa laa dégg nga ko di koy la demee nag moo may filmal fii ndeysaan Alioune Seye Junior yaa ngi bëre un très grand champion Tidiane Faye waaw waaw Alioune Seye jël na tànk ba Alioune Seye na tànk ba wéyal na ko Tidiane Faye wéyal na ko wër na ndomba laa ilaaha illallaah Tidiane Faye daan na ko Tidiane Faye daan na ko def na quatre appuis quatre appuis quatre appuis Tidiane Faye daan na Alioune Seye Junior conguma baaxul conguma baaxul conguma conguma baaxul conguma baaxul conguma baaxul conguma ndeysaan Alioune Seye Junior Tidiane fay daan na ko nga waaw parce que géew sago la waaw géew sago la waaw boo xoolee booy bi ni mu daanoo nga xam ne amul sago parce que congu bi mu congu te mu jëli waaw congu bi mu congu te ko ci yoon parce que congu bi distance la ndeysaan ana fan ma ja Cheikh ki ma jàkkaar lool mooy Cheikh Ba Ndiaye borom Touba Jembere taalibi sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimal Axlaa bi lambaloog la nag mais maa ngi lay bëgg. ñu ngi lay siyaare sëñ bi ñu ngi lay bëgg bu wér a wér sama semaine. ñu ngi lay bëgg naka mu tey da nga ñëw seetaan si sa mbër wala da nga si lamb. damaa ñëw rek en tant que amateur quoi. waaw tey moom damaa ñëw rek supporter yi ñaari mbër yi kilomètre gañ. waaw dañu am lamb ju rëy nag le 26 décembre. Pape Modou mbay la grand monteur la ñu tuddee lamb te damaa bëgg nga teew ci bis bi. bu soobee suñu borom ñoo koy ànd ñoo koy ànd ñu jàpp ci ñun ñëpp. waaw ba bis bi taaru ci barke yonent bi waaw Cheikh Ba Ndiaye bëgg nañ la yéen a ko yàq. lamb ji yéen yéen a ko yàq benn. lamb ji yéen ñii yéen a ko yàq. parce que benn droit fii. parce que yéen amu leen benn droit ñëw dugg ci biir. askan moo tax te nu ñëw war a jël si information jox ko askan wi. ginnaaw ay jàmm. waaw amul bàyyi leen loolu revenir ci jàmm. ak gars dañ ñu war a respecté xoolal lii. dama bëgg ñu wax leen respecté leen respecté leen. moo tax xoolal lamb jépp yéen kese lañ fi defal place. non lii moom du place que dañ leen a respecté moo tax jox leen cër moo tax yéen kese lañ fi defal lii. non ñun mënuñu a waroon a sant yàlla. julli ci leen parce lii ñu leen defal lamb jépp yéen rek yéen ñun dañoo war a circuler ci biir lamb ji. déedéet xam nga luy seen problème seen gars yi dañuy jël information yi di ko joxe. yow bu njëkk da nga daan defar lamb mais léegi daal man père xaw ma da ngaa jëm mag xaw ma. ñun dinañ la wutal ñetteel de xaw ma da nga am ñaareel di ko nëbb xaw wutuma soxlawu ma ko bu ma booleeg àddina gone gii bu ma tëjlu minutes téléphone yi tàkk lay laa ilaha illallah tafatin laa ilaha illallah Boy Niang na benn coup dafa dóor na ñoom ñaar dañuy xeex par force la ñaari bagaar réer na lii mënta ñàkk waaw waaw Boy dóoraat na songu nañu daje nañu korba korba la doon wut tafatin korba la doon wut am na laa <laughs> ilaha illallah ndeysaan Boy Niang Tapha Tine sànni na benn crochet bu dal laay laay la laa lii mooy combat jànk lii moy combat jànk lii ñoom ñaar ci digg géew bi ñu ngi xeex Boy Niang ak Tapha Tine Tapha Tine sànni na benn coup dalul Boy Niang door na wéy ko Boy Niang wéy na ko Boy Niang Boy Niang Tapha Tine Boy Niang lu tax nga wéyale ta toppoo action Boy Niang ak Tapha Tine Boy Niang Tapha Tine Boy Tapha Tine padd na ko Boy Niang Tapha Tine Boy Niang am na cinq avertissement lamb ji jeex na cinq avertissement Boy Niang am na cinq avertissement lamb ji jeex na lamb ji jeex na lamb ji jeex na